waaw man de maa ngi wax épisode bi tey si tey si comme kooku ti maçon xam nga dama dul jàpp tur bi nañ waaw kooku ak xale bu jigéen bi franchement seen rôle bi ñu joué neex na ma waa te ku góor ki mi ngi koy wane ne dafa dëgg quoi moom mi ngi wane ne dafa dëgg si moom eh, et puis tamit maanaam seex seex tamit ni muy boole ni muy ni muy dawalee si rôle lu sëy bi moom mi ngi wane mi ngi far wane ne bëgg na Lalla bu perte Lalla perte famem te tamit Marème saytaaneem la quoi bëgg na Marème te tamit Lalla gëw ma ne dina supporter Marème quoi Lalla du supporter Marème si kër gi ñoom ñaar parce que Marème dafa am ay caaji biir quoi waaw loolu moom allah li ñu moom neex na ma si loolu moom. waaw salué naa leen bëgg naa leen yéen ñëpp di wax ne série maîtresse moom macha allah. man vraiment j'aime bien aw ma lu ma ciy wax parce que dafa neex dafa neex trop su ma ko seetaan day mel ni que maa ngi ci biir série bi vraiment surtout fa surtout ñu wanal ma Moustapha ak Racky uuf ñooñu dañ may faj biram ñëw di ma gën a rey biram moom non su amul lu muy bàyyi wàññi tuuti dina moom mujj a mës rey ndax daf ma neex trop parce que li muy dund daf ci nekk pur daf ciy dund daf koy dund parce que def fi muy wàcc ak fi muy ñàngale benn lay doon te mook joor lu mën a nekk lax waawoo na nekk bu bato demee bato costé waawoo boor a gën a yaatu bato yi fay costé te beneen dem beneen ñëw waawoo du mës fees waa asalaamaaleykum maa di wax ci série bi Maîtresse d'un homme marié di wax ne mm, Marème daal man moo tax sax ma jël numéro bi pour enregistrer ko ndax euh, neexoon na ma trop neex na ma nag dama wax neexuma mais su ma sañoon mu xool yenn mooy fraises yi génnee ci gémminam bi moom mook jëkkëram ah, su ma sañoon daal loolu bu ko def ndax ñun ay xale loon te bëgguma tamit en plus ñuy sama suñuy rakk di koy seetaan ñun tamit ñu koy toog suñu parents di koy seetaan xam nga loolu day ruslu torop te suma sañoon ñu xoolaat seen kàddu yu baax a baax série bi nag neex na torop ci suma lu ci naxari neex na torop mais lu rek ko yàq man nag série bi li ma koy suivre bariwut mais Marème moom daf ma cee neex torop mais suma sañoon mu xoolaat bu baax a baax li muy sée ak mooy yu muy génnee ci gémminam bi daa rafetul dara dëgg fi yàlla ma rafetul salaamaaleykum yéen waa Lu Xew TV maa leen di di leen jox seen wàccuwaay bu wér mais maîtresse d'un homme neex na trop mais instant bi moom Marème ñu ngi ko mu ngi koy bëgg a yàq ndax lim ci joué am na ñoo xam ne boo toogoon ay mag doo ko mën a seetaan ak xale yi dana yàq xale yi film bi daal moom mooy loolu moom war nañ ko xoolaat bu baax. Euh, salaamaaleykum sëriñ on a maa ngi leen di nuyu. di leen char di leen ndokkeel ci weeru kooru sell wi ñu nekk di leen balaax te di leen balaax di lu seen liggéey ci série maîtresse bi franchement série bu neex la te série bu am solo la ñu ngi ci gis culture ñu ngi ci gis njariñ puis ñu ngi ciy gis yeete waaw man nag damay faral di lire commentaire yi quoi du damay dégg toujours yenn Sénégal yi am yu ñuy su leen fàtte ne prend série bi gisuma ci benn faute quoi c'est parce que ñi koy joué yéen ñu koy joué ay dool lañ gisuma ci xale Cheikh Diagne du xale mag la Biram du xale mag la Marème du xale mag la Moustapha ñoom ñëpp ba ci ay lalla ay magu jëmm lañ yor seeni njaboot yor seeni kër kon yaakaaruma ne gis na gisuma ci ñu def faute boo xamee si ni war naa mën a tax ba yenn Sénégal yi di leen critiquer ah non parce que boo seetaanee yenn séries yi ngay seetaan ci télé africain yi pourtant yi ñu ngi toog ak seen njaboot di seetaan ak ay novelas TV di ci gis yu gën a sexy te duñ ko kaas. mais ñun sénégalais luy suñu problème dañoo gëmul suñu bopp quoi lépp lu ñu gis suñu moroomu sénégalais di ko def di ci def di ci am réussite wala mu xam ne ne sénégalais bii kat li muy def mi ngi tegu ci yoon te mi ngi dugg ci xolu senegale yi nga gis sénégalais yi jóg di leen xeex li animateur Ndoye Bane di wax rek sénégalais di gor sénégalais yooyu moo fi war a jóg pour man nit ki su defoon benn affaire sax même bu neexul war nga ko ci remercier parce que acte bi mu jóg acte bi mu def ba joué loolu ak xel mi mu war nga ko ci remercier encouragé ko pour bu ëllëgee mu mën a yokkaat gën a góorgóorlu waaw man nag maa ngi leen di remercier bu baax di leen wax ne ne série bi wax dëgg yàlla neex na man nag duma ko rate heure bu ngeen ko dugalee man seen seen si abonné laa chaque jour heure bu duggee day affiché sama kaw écran téléphone dama koy seetaan neex na macha allah waa Lalla ak Cheikh seen lune de miel bi franchement neex na trop gisuma fu lu sax lu Sénégal yi mun a kaas quoi parce que lu mu séy foofu ci waxam nee na dafa bëgg seex te parce que yéene na ko séyal waaw mais pour man jigéen da nga war a jonge waane wan ko sa jëkkër ba mu xam ko loolu mooy jigéen quoi mais jigéen warul rëy ci kanamu jëkkëram soo xoolee première chose lu mu ko njëkk a wax seen suuru lim de meel maa ngi doog a gëm ne tey suma jëkkër nga ba pare ne ko dama laa rus kon d'abord foofu benn rusel dugg na fa waaw jigéen gu war a seq ak jëkkëram premier jour kon kooku foofu am na rusel bu fay am waaw mais nag après loolu su weesoo danga nga war a joŋee fexe ba sa jëkkër bëgg ci yow nga bëgg ci sa jëkkër non man moom maa ngi leen di remercier di leen wax ne ne seen série bi am na solo trop waaw man nag maa ngi mbooro maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maîtresse bi euh, di wax ne neex na trop seen liggéey bi macha allah neex na lool mën naa ne instant yi ñëpp a koy seetaan ñëpp a koy seetaan mais instant yi kenn daal moom ci gën a gën a gën a soof muy instant yi joor ndax joor man li bëgg a def laa xamuma ne fi lan la. waaw boo dee xool sax danga naan kii dafa bëggoon a nangu jëkkëru Jalika moo tax mu fexe tas sayam man loolu laa ko mën a jàppee et puis Lalla tamit ni mu réagir tamit man neexuma ndax euh, pour man wujj jarul jarul yenn yi daal waaw wujj jarul yenn yi seen série bi daal neexa trop mais am na yoo xam ne jaruñu ko ci dugal jarul buñ ko yàq daal ndax épisode 34 bi sifur naa ko mais Marème tamit wax jëm ci wax rafetlu ma dara franchement dëgg yàlla maa ngi jéglu bu baax nag. salaamaaleykum waa série maîtresse nuyu naa leen ziar naa leen delloo naa leen seen wàccuwaay waa série maîtresse d'un homme marié nag dama koy suivre tout le temps dama koy suivre dafa nekk série boo xam ne dafa ma neex waaw man nag lu ma ci gën a metti mooy dernier épisode bi dernier épisode bi mooy Marème sama idole sama turandoo. mooy moo cheikh bañ demee lu la mel lu mu soloon en plus ak seen waxinu vulgaire yi daal loolu moom ma ci metti parce que man damay toogal sama parent yi sax ci ci saal bi ak sama rakk yi ñuy wax ay waxu vulgaire ay solin yoo xam ne mooy loolu dafa yaakaar naa ne booy jouer série dana jouer loo xam ne day yee nit ñi ah pour en plus nit ñi di ko gën di suivre nit ñaa ngi koy suivre sax parce que boo duggee ci YouTube bi da gis aimé yi ak commentaire yi wante daal bu ma sañoon ngeen di wax ay wax yu baax daal yu yiw ak solin yu yiw te bàyyi waxu vulgaire loolu dong moom ci met Jalika yow nag moom macha allah yow fi nga jàpp jàpp fi nga nekk jàpp ko bu baax a baax di wax sa xarit boobu noonu naan day nabanteeg sa jëkkër di def lu baax far lu bon di la ci fekk xam nga loolu jaru ko. am naa nag sa xarit bi bis boo ko xamee di ngeen am sérieux problème waaw Marème yoon nag li ma lay wax sama turandoo sa sëy bi bu ci daw benn yoon laal da lay tiital rek laala da lay tiital dafa bëgg nga daw bul daw benn yoon yow yaay ñaare xaritu jëkkëram waaw li may wax na ci épisode bi lu ma ci metti mooy seen soli vulgaire ak Marème fi nga naan damaa namm góor dama ko gëj a def loolu daal moo ma gën a metti ci série bu ma nee ma bu ma nee bu ma sañoon daal ngeen xool seen kii bi seen emploi du temps bi daal waa merci beaucoup su fekkee li ma wax da leen déranger tamit ak dafa am ko mu metti maa ngi jéggalu bu baax a baax. allo si loo leen nekk a ngi si jàmm ah ok ah, bi moom série bu neex la série bu yeeyaate la série bi day yeeyaate trop noonu. waaw mais lan may yaba bi nag lan mooy problème bi ah, Grand Tapha waaw dafa gore dafa nekk góor bu gore bu fekkee ne nag góor yu ma xam la duñ koy doxalee ni duñ ko doxalee mais toujours Marème mu ngi muñ day expliquer Marème bu nekkoon keneen day dem def naka sutur noonu ranger sa bagage yi demal nga ñibbi yaa xam boo munulee takk boo munulee xejal ki yaa xam góor yi bari dañ ko fi dee def. waaw buñ takkee ñaareel seen jabar yi luñ def lu ne seen yoon ne ko fa mais moom deful loolu dafa jël aaw bi mu xam ne yaay aaw teg ko place yi aaw ko manqué lewu dara kon boog tey lan la lu muy réagir nii fees yi sama place du ma ko def wax leen lan la lan la lu muy réagir du dëgg du yoon kenn du def lii waaw bokku ci kër bokku wërsëg la nekkul benn problème Marème muñ na Marème lu muñ na. ah dafa pour mu dem si moom sa explique problème wax leen lan la na ko xejal gaa yi ñëw sëy si kër bi ñoom yëpp ñu nekk benn di foo deree ak am loo neex tey nga nekk ma nekk wujja ñu nekk wujja maa ak yow nekk si kër ngay def may def xoolal jigéen bi boo musul woon def sax boo gisee sa wujju li ngay def mooy gën a piir day kër wax leen lan la man ma ne na bàyyi xale bi ñëw sëy si lu muy def ni yëpp jaru ko waaw gis nañ fii ñu taal seen jëkkër gis nañ ko lu muy def nii du dëgg du yoon nañ bay loolu di xejalante ñun jigéen ñi nañu xejalante bu ñu xejalantee day neex waaw te dama war a wax ne sama moromu jigéen ñi xam ngeen ne ñu ñoo fi ëpp kon nañ xejalante waaw yàlla num la boole ak moom mun na ko boole ak ñaata nit góor dagal na takk ba ñeent kon bay leen góor yi takk ay waay nañ takk man mii man maa leen wax loolu noonu maa leen wax. na ngeen takk waaw lan moo si problème lan la na bàyyi lu muy def nii ñii dañ ko dépassé ah day yàq dari aaway de baax na daal ok baax na jërëjëf bu ma fa waxee li nga xam ne baaxul maa ngi jégal ok. salaamaaleykum waa maîtresse d'un homme marié waa man nag dama bëggoon participer ci épisode 34 di wax euh, marié ba dafay déborder de trop. surtout ma fi ko fi mareem ak kii di waxee ay dama na ma góor ak genre yooyu noonu loolu waru si bokk parce que ñun nous sommes des sénégalais ay sénégalais la am na yenn langage yoo xamante ne waruñ di ko dawal si suñu réew mi rawatina nga xamante ne ay jeunes ñoo fi ëpp te ñëpp a koy seetaan mën naa ne ñëpp a koy seetaan parce que série bu xasee commencé kër goo dugg duñ na tontu sax ndax ñëpp a koy seetaan. mais am na yenn langage yoo xamante ne daal bu ci génnoon rek dinañu neex lool parce que film bi nit ñi bëgg nañ ko te tam aussi ñu ngi koy seetaan yenn langage yooyu daal bu ci jóge woon dina neex mais à part noonu moom macha allah neex na trop di wax ci laal la moom nee na dafa doxoon la wax ba léegi wér na mu ngi jàppale jëkkëram pour mu nekk ak beneen jigéen mais fii benn jigéen nanguwul ñu takkale wujju loolu kenn nangu parce que nekk na loo xamante ni kenn bëggu ko. mais puisque nag yàlla dogal na ko ba mu nekk ba loolu am na mu nekk réel na nangu na nangu comme dem na ba koy jox euh, pañwaar pour moom ak jëkkëram ba ko ci bindal ay madame madame Diagne ak genre yooyu noonu léegi na nangu na aspecté pour mu ñëw ci kër gi loolu kese la mais à part ça moom film moom macha allah mais yenn langage yu vulgaire yi ci bokk moom war nañ ko ci mën a génne ma ne ma xaritaan boobu des fois dañuy débordé ñoom dañuy wax dafa ëpp du trop ñoom ñoom kese laa gis série ñuy wax loo xam ne ëpp. waa di jégalu ci vocal yooyu dama ko envoyé ba pare mais dafa mel ni que ni xam nga li ma ci bëggoon a wax dafa des quoi euh, la dama bëgg mu comprendre ni que xam nga wujje moom bokk wërsëg la Sénégal waruñu jël que ni maanaam xam nga bëgg a wan nit ñi que góor ñi dañu war a yem ci soxna warul demee noonu parce que dama gis que ni yi daw Sénégal yëpp loolu nu bëgg a gëmloo nit ñi góor dafa yem ci war a yem ci benn soxna non non dañu war a xam ne ñun xam nga ay musulman lan xam nga. kon tey cheikh am na droit dem ba quatre femmes kon il faut laal la comprendre ko te que cheikh bu ko laal la comprendre rek gëm naa ne euh, dina dina am lu mu wane quoi parce que gis naa que ni bi mu àndee ak dem ba ñëw dafa wane que ni xam nga aayuloo am ful xam nga kite delluwaat këram kon nag il faut laal la jàppale ko bu ko defee cheikh wane am wane li bëgg li bëgg a wane quoi parce que gis naa nit ku am responsable la quoi waaw fële mënewu ma wax quoi mais am naa mbégte trop vraiment kontaan na ci série bi ni muy demee rafet na waaw ngeen xaw a bàyyi xel tuuti rek ci gars yi critiqué xam nga parce que nag am na ci yoo xam si du rafet nga toog ak say doom di ko seetaan day xaw a doy waar quoi.